booy waay booy nu mu demee ni yow xanaa xamoon ne afro day sóob daf ma bëgg jaxase grand bi c'est que da nga xamul ne moo ko ñoo bokkoon business bi quoi te óol mooy tête bi. yow da bàyyi duul yow te bu ko ma war gëm et sax noo def ba xam information bi. Ah, Max da nga war a xam benn affaire quoi mosuma la fent jéem ma la fent dama lay jéem a mettre rek. en quarantaine bi nga xam ne boobaa di nga mën a sauver sa bopp. yow man dama doon duru kuy xob yow su moytu du am yow laa war a moytu. dama lay wax daf ma leer ni midi afro ñaari facette la soo deful ndànk da lay dëbb mais amul problème. je contrôle la situation. amul problème yox la say. du yàq sa kulun yi yéen a yàq sama business. amul problème. lay def fii. comme toujours di dox ci ay ok si je me trompe yaa ñu war a informer. <laughs> effectivement. là je parle yow la ñu déglu. Max récupéré na xaalis bi demee 11h mais du jaar même endroit ba mu doon jaar bi pas Liberté 6 lay jaar yow boo récupéré action jox ko affaire affaire bul fàtte sa kanam warul fay. waaw ah, xam loolu loolu problème.

c'est une longue histoire naa la tegalaat. doo am problème. dañu la faire. Hmm. bàyyi ko moom mu dem yóbbul dem. mu noonu loolu. dafa nuñ la wax et on discute pas. rek sama gars yi. Eh, yëpp naka la. maam naka mu gars yi. cool sinon muy cool. waaw da gis a gars waaw yoon yow bokkul nag moo tax keneen mara. mais luy jàppee. dama am benn problème quoi. daanaka ma par la suite ñu dóor ma. non. 5 kilos bëri na de gars yi. nu mu demee noonu gars yi xaaral nga doon nelaw. nelaw loolu la foog rek. Je suis un homme. ma <laughs> fait non même pas dama xam y def afro le frère de Paul c'est pas la première fois muy teg loolu encore afro. corps bu dina pas regretter waaye da ngeen xam nga bu baax. pourtant jàppoon naa ko mais daf ma bañ a wax fan yi nekk mais par la am ñu ñëw saltel gars yi tas. Ron cinq kilo yi gën sa xel jar na ba pare képp afro récupérer xaalis bi loolu mooy deal bi te am naa solution pour loolu. afro nekku yow kës yaa ko soxla quoi yow fexeel ba tracé loolu noonu parce que waxoon naa ale boo gis am na retour damay fay lu ma defoon. waaw léegi naa dil ak moom on doit se voir da ngay bàyyi ba dil bi jàll ma livré loxo. dinaa jot ci moom. saa naa la déglu de. après loolu ko deful si yéen saway sa waay ragaluñ lool sa kii bu la kóolul maa lay kóol. Dara boo ko jotee rek wax ma saa fa ma jot. non t'inquiète y a pas de souci. naa dégg géem loolu yow. déglu ñu. ok. grand yow foo nekkoon dib dib maa lay woo mënu ma laa jot. non man dafa am business yi ma lijjanti mais bi ma ñëwee ci kër gi fekk ma la fii woo naa la après ma tëdd nelawaat donc mooy loolu. maa ngi nii ci parc bi ginnaaw gàlle ana. ginnaaw gàlle ana looy def foofu. bu maa ñëw gàlle sànq. non police man lay wër quoi. lan yow lay wër. yow ñëwal fii rek ñëwal ñëwal fii après naa la expliqué ñëwal. maa ngi ñëw léegi léegi xaar xaar ma foofu maa ngi ñëw léegi léegi. allo boss waaw naw mu waaw maa la doon transféré léegi xaalis mi sax.

lan nga def ba police di la wër. naa la ay problème yoo xamante ne mooy waxuma loolu lan nga def laa wax. Willy moo ma jox benn kool ma jaay ko Moura borom kóol bi day ko rey. lan. Zal. Zal. waaw xaw ma ko woon. Zal da nga dëgër bopp da nga dëgër bopp waxoon nañ la Willy bu ko topp yaa ngi ni dugal nga sa bopp ci problème. ma la woon seetaan ngay sonn ci man chaque instant il fallait que ma def quelque chose pour jàppale la. yow Zal man maa la war a jàppale je suis ton grand frère munoo ma jàppale instant bi xoolal li nga def xoolal li nga def Zal eh waxal ak man. Oh, grand grand xamee moo ko woon nii ko te grand chaque instant yaa ngi sonn ci man il fallait que ma def quelque chose pour jàpp si non. instant bi gis nga résultat gis nga résultat bi fan nga ko gérer lii lii fan nga koy gérer yow. what man ma dellu gaale bàyyi la fi yow ci mbedd bi yow nga dof wala lan la eh ñëwal ñu dem kër ga man dina ko gérer Zalé, man je suis ton grand frère aie confiance en moi du ma la bàyyi si mbedd bi Zal je suis ton grand frère yaa ngi dégg dinaa ko gérer man ma la dina ko gérer tu as ma parole ñëwal ñu dem kër ga lii dama daanu si moto kérok vite fait c'est pas c'est pas important li ëpp solo nga ñëw ñu dem kër ga lijeenti li mo gën. non mënu duñ dem Kara. Zal zalé eh. lii mënu ko doxé ci mbéd mi lan la doxee. lii lan la. waaw la. lan la ni lii fo ñu dindi ko. xol lu ko mëna ci téye loolu li mënu ko dindi. riposté on est 3 contre 1 indi sac bi. tu devras me tuer là-bas. ああいい分かります